you asalaamaaleykum ami internet Dakar live ñu ngi la ñuy jaare di am mbégte saa su di leen indi lépp loo xam ne xibaar la fii ci Dakar live TV waaye tamit di am mbégte saa ne rek di jàkkaarloog yéen fii ci Dakar live TV xanaa tamit di leen souhaiter rek euh, happy new year di leen wax na leen bonne et heureuse année 2021 yàlla ubbi bunt yi yokk sutura yi defal ñu jàmm waaye tamit dàq mbas mi si àdduna wërngal këpp waaye rawatina fii suñu Sénégal waaye tamit di ñaanal kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg képp koo xam ne rek yaa ngi mi ñu ngi lay ñaanal jàmm gu sax dàq waaye yéen tamit ñi nga xam ne yéen a nekk ci diaspora bi yàlla defal leen jàmm gu sax dàq waaye tamit nag di wax tamit Sénégal yàlla na fi jàmm sax waaye nag tey waxtaan bi eh, dafa am fi ñu ko oriente rek mooy par rapport ak li nga xam ne mooy showbiz bi nga xam ne eh, gis nañ à chaque moment rek day indi li nga xam ne mooy bruit dëgg la showbiz ak bruit ñoo ànd waaye tamit bruit boobu taxul tamit nit ñi bu ko foo xam ne après mun na indi ay détails parce que détails gis nañ ne am na eh, depuis 31 décembre ba tey ci diggante ki nga xam ne mooy Wally Seck ak Youssou Ndour mun nañ ne Sidi Diop tamit aussi si la bokk ndax gis na ne ñoom ñëpp dañu nekkoon nekkoon ci benn télé bu nekk rek di def li nga xam ne mooy benn en ligne euh, pour bëggal seen i fans ñoom noonu lañ ko jàppee woon euh, ki euh, a jàpp waaye nag mbir mi après dafa jël beneen moo ëppale kii ëppalewul boo xoolee ci diggante Wally Seck ak Youssou Ndour euh, coow li mujj gi dafa bëri doole parce que tamit gis nañ ne sénégalais yi wala ñenn ci sénégalais yi ni ñu ko jëlee euh, newewul noonu parce que tamit internet bu ñu amee ci 2 millions foofu la yem kon ñuy dem si internet bëriwuñ bëri boo xam ne mun nañ ne kii moo raw kii wala kii moo raw kële te tey bi fu nekk ci àdduna rek nit ñi dañu mën a seetaan li nga xam ne mooy télé te boo xoolee TFM tey mun nañ ne euh, mu ci satellite yi gën a rëy ci àdduna bi parce que tey TFM mun nañ ne foo dem ci satellite dañ koy gis te boo xoolee 2S am na ci satellite yoo xam ne ñoom amatuñ fa li nga xam ne mooy fréquence donc war nañ xoolaat bu baax a baax bu dee dañuy xool euh, nombre de vues wala nombre ñin ñin ñen ak ñen ak wala kan moo ëppale il faut que dem uti bu baax a baax da si baax te man pour man sax loolu nekkul li nga xam ne nit ñi moom lañ war a wër parce que ki nga xam ne mooy Youssou euh, am na lu nekk ci musique mun nañ wax parce que tey jii tey Youssou Ndour am na ñu bëree bëri ñoo xam ne euh, fu Youssou Ndour toll lañ bëgg toll parce que Youssou am na foo xam ne yëpp na ko musique Sénégal lu nekk gagné na ko bépp raaya boo xalaat rek ci musique ay Youssou Ndour am na ko ba dem teg ay projet am loolu tamit dañ ko si ñaanal yàlla aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ñu am ko te Wally Seck aussi tamit mu ngi euh, da ngay ñaan am lu raw lu say morom am wala say papa am te Youssou la ci moom waaye nag mbir mi euh, il faut que tamit Wally Seck wala ñi nga xam ne ñooy ànd ak Wally Seck aussi tamit ñu moytu xam ne euh, mag dina nekk ci kaw garab du sant fu sori te yow doo ko gis gone nekk ci suuf du ko xam waaye tamit il faut que tamit nit ñi mën a xam xam rek ne musique liggéey boo xam ne la dafa war a nekk liggéey yu noobul waaye bañ nekk affaire de xëccoo wala diw yaa ëpp vie wala yaa ëpp nii parce que pour man euh, vie yooyu noonu ñuy wax noonu amul benn sens après ay détails la indi détail bi mooy sénégalais yi ñu ngi dugal ci loo xam ne Wally Seck euh, peut-être sax Wally Seck moom duggul ci loolu waaye dina mën a indi ay détails parce que 31 décembre bi gis nañ ne euh, Youssou Ndour tëgg na Wally tëgg na parce que Youssou Ndour dafa amoon benn projet bu mu tuddee fii tey à chaque fois mu génn def moom la doon clôturer après André Seck partenariat ñi nga xam ne mooy waa Soboa mbir mi nag après ñoom ñu def ko foofee ca TFM ki nga xam ne eh, foofu mbir eh, loo xam ne kenn ku nekk rek ki nga bëgg di wax ne kii moo raw lii wala kii moo raw lee parce que amatul lenn loo xam ne war na ko mën a gagné si musique fu mu ne nii kay dañ naan eh, ndaw yi nekk ci ginnaawam ñoom ñooy jéem a xool nan la ñuy amee li Youssou Ndour am te Wally moom tamit xam naa ne foofu la teg bëtam ki mel ni Sidi Diop wala keneen keneen keneen ba tax na tamit jot na euh, artistes yi aussi tamit am esprit de grandeur boobu noonu wala am esprit de dépassement boobu xam waaye tamit ñi nga xam ne aussi tamit ñoo leen jiitu aussi tamit gën leen won yoon bi euh, ki nga xam ne mooy Youssou Ndour mun nañ gis ne euh, TFM daw na ci satellite yëpp yëpp yëpp boo xoolee tey TFM am na si yenn satellite yoo xam ne audience quotidienne bi boo xoolee TFM moo raw topp topp ci seen TV topp ci yeneen seen yeeg yooyu noonu noonu euh, day wane ni tey jii nii euh, boo xoolee kon si yenn satellite yi 2S nekku fa kon bu ñu doon xool nombre de vues rek mun nañ ne kon 2S euh, TFM raw na ko ci satellite yi wala tey jii bu nga xamee ne mooy côté numérique bi bu doon mun nañ xam nombre de vues yi comme ni ko gars yi waxee woon ci TNT bi mbir mi kon du du nekkati ay xëccoo kon boobaa Youssou Ndour jël na raw gàddu bi yàgg-yàgg waaye man sama xalaat bu gàtt Youssou Ndour amul raw gàddu bu mu fiy jël donc Youssou Ndour moom li mu am ci musique am na ko yëpp Wally loolu la ñuy ñaan ñoom am ko parce que Wally mu ngi ci lancé boo xam ne su ko yàlla dimbalee euh, mun na jóge fii kon nag jot na sénégalais yi aussi tamit wala ñeen ci sénégalais yi ñu xool ni ñuy jàngatee mbir yi te bàyyi di wax ne ay Wally Seck moo raw yu sunduur ci vie nii wala laa parce que li ñuy def nii pour man amul sens amul sens mooy Sénégal dafa jot musique Sénégal tukki comme ni ko Youssou Ndour tukkilee parce que Youssou Ndour tey jii musique am foo munti dem ci àdduna da koy déglu fu nekk Youssou Ndour dem na fa façon raay bu dul raay ji ne Youssou Ndour jël ko tey jii nag jeunes yooyu nekk si ginnaawam ñoom dañoo war a nekk ci loolu ci lancé boobu moo gën ñuy xëccoo ay vie wala ay lii wala seeni fans aussi tamit di wane ay jikko yoo xam ne tey jii nii euh, bu ko gisee artiste bi tamit topp ci loolu mun na ko yàqal donc man lu may wax rek mooy il faut que tamit Wally Seck euh, mu xool xool bu baax baax a baax fu muy teg tànkam parce que tamit comme musique xale te xale boobu tamit day xëy doon mag tax ñu sunu ba muy woy commencé woy xale la woon donc loolu yëpp dafay baax nga saytu xool sa ginnaaw xool sa entourage aussi xool fi ngay teg sa tànk pour que aussi tamit nga bokk parmi les meilleurs parce que Wally fi mu nekk lancé bi ni su ko bawul yàlla mën na ko dimbale mu bokk ci artistes yi gën a mag ci àdduna lépp rek da ngay gëm sa bopp waaye xam yoon bi ngay jaar waaye mbir mi ñuy teg ci ay youtube ak yi yëpp bu fa tegee nit ñi dañuy dañuy nax seen bopp parce que Sénégal presque 16 millions d' habitants boo xoolee deux millions de personnes rek ñoom ñooy seetaan li nga xam ne moo nekk internet parce que deux millions internautes la ñu am tey ji boo demee ci kaw gi wala nga dem ci diaspora bi wala feneen ak feneen na ñoo xam ne amuñu temps wu seetaan nga xam ne moo nekk télé ci li nga xam ne mooy YouTube mais dañuy dem taal seen télé seetaanee ko foofu parce que foofu mooy gën a a neex léegi ki nga xam ne amul connexion moom il est tey jii dalee leen tey boo demee ci dëkk kaw gi kon mun nga gis ne li nga xam ne mooy RTS TFM ñooñu seen audience day bëri foofu wala feneen ci ci nga xam ne moo nekk diaspora beeg yeneen yeneen parce que li nga xam ne mooy 2S ñoom am na si yenn satellite yoo xam ne ñoom amatuñ fa fréquence kon tey jii bu nit ñi toogee di wax ne eh, Youssou Ndour ak Wally Seck dañuy xëccoonte fële seen YouTube wala vue wala nombre de vues vue bu doon vue rek kon Pawlish Mbaye ak Ouzin Keita am nañ ay milliards seen vues yi ñu am si nga xam ne moo nekk 2S plus de 1 million de foofu noonu même pas 4 euh, jours donc pour man yooyu warul tax sénégalais yi rek mun a concentré wu ci loolu rek di sonal nit ñi eh, ak Wally ak Youssou Ndour ak keneen ku munti doon dafa jot nag gars yi nag xam ne musique ku nekk rek am na lu si yàlla may Youssou Ndour loo ko munti wax rek yàlla may na ko loo xam ne kenn ku nekk bëgg na am li Youssou Ndour am donc Wally Seck aussi dañ koy ñaanal yàlla dimbale ko mu def li Youssou Ndour def si musique mu am bépp raaye bu mu war a am am disque d'or am lépp loo xam ne su am na ko loolu lañ koy ñaanal di leen wax tamit mbokk yi woy leen di abonné fii ci Dakar Live TV baatu xol bi tamit ñu war a waat xoolaat tamit toogaay fii ci Sénégal ak ñenn seytaane yi laa mën a wax ñenn naafeq yi nga xam ne ñoo nekk ci li nga xam ne mooy réseaux yi ma xamul yooyu amul sens nañu jéem a xool nan nañu defaree suñu réew mi parce que loolu moo am solo Sénégal réewu teranga la xool lan moo ñu avancé loo moo gën ñu nekk fi di xool ay nombre de vues wala plateforme bee moo gën a avancé parce que fii la Wally Seck noonu joué plateforme bee boo seetaanee lii laa yéen ngi nax seen bopp Youssou Ndour am na fu mu toll foo xam ne kenn ku nekk loolu lay ñaan toll fa Youssou amatul lenn lu muy uti musique donc ñu ngi lañu sant di leen gërëm bu amee loo xam ne dañoo jum si wax bi ñu ngi jéegulu parce que doomi aadama matul bu lu baax jàpp leen ne suñu borom moo baaxal lépp di leen wax leen wooy leen di abonné fii leen ñaanal jàmm di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm bu sax dàq di wax ne yàlla yàlla def jàmm ci réew mi Wally Seck Sidi Diop ay magarak la Youssou Ndour seen baay la donc nañ ko toppee noonu mbir mi neex ala doomi loolu mooy musique di ziar ñëpp